droit de créer les conditions d'une frustration au sein véritablement de ta coalition par rapport à tes alliés yi nga xam ne gëm nañu sa projet am na si ak yow wala mm-hmm, mm-hmm. je pense que à ce niveau là dañu naan xëy na tête de pont bi Pastef la nag dañ naan coalition Pastef mm-hmm. yeneen parti yi ñëw ànd ak ñoom gunge leen voilà ànd ànd ak ñoom gunge leen euh, ñoom tam ñu am ñoo xam ne investir nañ leen te ñu jóge si si alliés yi pour ñu mën a dem si loolu Ah parce que voilà mais c'est-à-dire du ma ne yéen alliés yi dem leen bay seen waar man sam waal man parti bi ma dem bay sam waar parce que su boobaa déjà tu crées une dispersion de voix mhm. tu crées une dispersion de voix et créer une dispersion de voix foofu nag pour man c'est un c'est trop risqué parce que tey jii nii on ne peut pas penser au Sénégal un pouvoir qui vient d'être élu six mois sept mois huit mois après mhm. qu'on ne lui donne pas la majorité pour bien travailler. Mhm. suba tamit kooku kenn du ko laaj bilan. Mhm. parce que ñun amaguñu maturité maturité pour man amaguñu maturité démocratique maturité élevée pour mën a jëm si li nga xam Sénégal la ñuy gisal. Mhm. Sénégal la ñuy wan kanam. jëwriñ xaw ma nag euh, bon <laughs> man si sama xalaat bu gàtt Papa Abdou. man noonu laa ko gisee parce que pour man euh, ñi les enjeux sont cruciaux. enjeu yi jamono ji Sénégal bul fàtte ni tam au delà de li nekk si biir au delà des facteurs endogènes y a des mais xoolal exogènes yoo xam ne ñu ngi si biti y a des lobbies yoo qui sont à l'extérieur yoo xam ne aujourd'hui ils vont mettre ils vont faire la guerre à ce régime là absolument par des voies de contournement mm-hmm. en utilisant ay doom yu nekk fii mm-hmm. sur le plan politique amaana financer leen amaana yokk seen doole amaana jox leen beneen dayo pour véritablement créer les conditions d'une déstabilisation de ce régime-là. te loolu c'est source de blocage justement du pays. et jàpp naa ni nag loolu moom euh, kenn soxlawu ko fi. Mhm. te comme ñu on a dit régime buy doog ñëw. pour un premier mandat li Sénégalais yi tàmm daal mooy jox majorité. au bout du compte nga laaj ko nag sa bilan. deuxième euh, euh, mandat nag. après sénégalais yi ñooy xool nu ñu koy doxalee. ne ne on va non non doxaluñu sa sa premier mandat gis nañu ñun doyuñu deuxième mandat bi on va créer les conditions d'un équilibre. Mhm. entre yow exécutif ak ñii nga xam ne ñoo nekk si législative bi. wa illah dañ koy joxat majorité parce que bilan am doy nañu. te am na loo xam ne war na ko mottali parce que li ñuy gis doy nañu. ñu war ko jox majorité. mais imagine toi Djibi avant douze mois au pouvoir ñu ñu inverser les jox majorité bi keneen yor ko. mais c'est contradictoire mais ce serait ce serait ce serait problématique. waaw waaw bon li ma bëggoon rebondir rek juste mooy euh, par rapport ak li Pa Amadou doon wax léegi euh, dafa amoon solo quoi parce que yaa doon wax ci dissolution Pastef bi xam nga boo xoolee euh, première fois bi ñuy menacé de dissolution du parti. Mhm. bi Antoine Diome di bind affaire bi. xam nga lan la évoqué woon comme motif. parce que dañu ne woon dañu am ay soupçons de fonds. ñuy mhm. jóge ci biti. suñu jugee étranger mhm. xam lu tax ma d' accord ak yow. Mhm. je suis parfaitement d' ak yow. Mhm. boo demee États-Unis bi lu tax seen ancien chef d' état yi duñ nangu ñuy génn jaral nañ ñu jox leen lépp lu nga xam privilège la pour ñu toog rek. bëgguñu ñuy génn. absolument parce que la ñuy xam a tax. les données stratégiques. yow nga am un ancien chef de l' état. avant muy quitter ay fonctions am nommé nañ ko envoyé spécial. daf nañ ko employé. employé. te ka muy liggéeyal c' est le plus grand ennemi de notre pays. muy Emmanuel Macron. Mm-hmm. xam nga loolu c' est tellement dangereux mos naa ko wax si benn plateau man leen tey ku bëggoon yàq Sénégal jarul ngay jaar ci ay mm-hmm. terroristes. jaaral si Macky rek. absolument parce que il a toutes les données stratégiques de notre pays. coin yeeg ruq yeeg ruqaay les failles sécuritaires xam na ko. tout léegi comment concevoir moo tax ma ni la tey motif yi ñu évoqué woon motif yi ñoo gën a dëgër. pour tas APR absolument APR kan financé. c' la république. kanay fay président Macky mais nañ waxante dëgg kana koy fay. Macron mais Macron koy fay. ñee dañ doon soupçonné woon ne ay fonds yuy jóge fële bitim réew te loolu dañ koy bañ pour parti politique yi. Mhm. mais mais sëriñ ñun. est-ce qu'on a mesuré le niveau de dangerosité. moom laay wax ni. <laughs> c'est tellement dangereux. Mhm. xam nga moo tax bi ñu fi affecté euh, le général Kandi Kandé xam nga Kandi. Kandé Kandé waaw ñëw Dehli. moo tax Sénégal yu bëree bëree bëree bëri bi coow li amee en réalité non d'autant que non non mooy bi ñuy bi koy honoré en fële en France. mais sénégalais yu bëree bëri dañu ne Mac Macron moo nekk si suuf Macky moo nekk si suuf ñu bëree bëri kon nga xam ne ñoom sax dañu seen xel dafa ñaaw ci collaboration bi Macron am ak ak ak ci suñu réew tu as donc man pour man man dama jàpp ni kooku suma ultime conviction la ma gëm-gëm la man dama jàpp ni décret bi gars yi waroon njëkk a jël mooy tas APR man man loolu suma gëm-gëm la loolu nag ça n'a rien à voir ak ay démocratie mais xoolal c'est une question sécuritaire seen secrétaire général mu nga Europe mu ngi ci président Macron suñu noon Macron bi Sénégal di gën a takk fii di boy communauté internationale bi yëpp di sanctionné dérive président Macky Sall Macron ni ñett di ko woo pale ñuy mel ne ñuy ñaawal sénégalais yi mais yooyu yëpp éléments yooyu ñu ko war a jël en compte man pour man. donc moo tax ma ma wax nii foofu dama ci en réalité dama si d'accord ak ñoom. mais Paa Amadou Mbaye juridiquement parlant élément bi mu wax nii. boobu euh, nuñ ko mën a jàngatee l'ancien président actuel euh, donc l'ancien président Macky Sall mi nga xamante ne nii pratiquement. il était l'homme le plus informé bi euh, di travailler ak beneen chef d'état donc voilà quoi ba tey ji nekk ci langue politique gi ndax gis nañ ko muy woote à distance donc élément boobu lu ñu war a mën a jël la juridiquement parlant teg ko ci table bi pour mën a sévir jëm ci parti bi nekkoon fii au pouvoir non seulement jibi élément la boo xam ne mën nañ ko intégrer parce que c'est important li nga xam ne moom lay wax xam nga jibi euh, dans les jour à venir parce mhm. que enclenché nañ à présent la reddition des comptes et au-delà de la reddition des comptes am na benn waaye boo xamante ne présentement jàpp nañ ko yi dans les lien de la détention koo xam ne dañuy wax ne euh, dafa bokkoon ci milice privée APR. waaw Jérôme Bandiaky. voilà et d'après les dernières informations si je je sais pas si c'est des informations crédibles wax na ne. am na ay révélation yoo xamante ne nii tey ji ñu ngi koy xaar ci moom te bu ko defee loxo dina dar gémmiñam te ji bi je vous dis une chose le président Macky Sall il ne faut pas perdre de vue que bu mu la bett dans l'avenir que Sénégal toll ci niveau boo xamante ne ni impérativement dafa war lancer un mandat d'arrêt contre moom parce que am na ci yenn loo xam ne bu ñu fa àggee sa présence pour leeral lu bari day day nekk lu obligatoire. Mm-hmm. kon jàpp nga ne am na fu ñu yegg ci wàllu reddition des comptes ak. ak leneen reddition des comptes xam nga reddition des comptes c'est l'aspect financier yooyu loolu la quoi. mais même ci yeneen. par rapport ak affaire yoo xam ne c'est des choses secrètes par rapport ak tey jii nii dérive yi amoon Sénégal ak ñi doon rey ci manifestation yooyu am na fu ñu ci toll boo xamante ne buñ ci àggee. mandat d'arrêt dinañ dema dema dema dem ba lancer un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de l'État day parce que hmm. lu ci bari oui parce que am na ci lenn loo xamante ne tey jii moom mënoo cee génn responsabilité am il a été le président de la république la clé de voûte des institutions bu ñu demee tey jii bañ mën a jàpp ne am na koo xamante ne tey jii présentement il a été cueilli dans un appartement boo xamante ne ni c'est des c'est c'est c'est une maison de fonction avec des armes entre autres donte ne présentement nous sommes toujours dans la phase de la procédure xamagoon carrément s'il est coupable ou mais en tout cas lii ma lay wax ni enquêteurs yi révélé nañ ko mais bu ñu tey jii nii ba creuser au fond moo tax ma ne la mën nanoo dem ba situation boo xam ne même la présence du président de la république de l' président de la république day nekk leen na loo xam ne autorité judiciaire yi impérativement dañ koy ordonné te bu amee dina ñëw mu leeral par rapport ak lu bari loo xam ne amoon na Sénégal parce que boo xoolee Sénégal avant l' de ce régime là Sénégal dafa nekkoon ci benn crise institutionnelle on a déjà enclenché la réduction des comptes xam naa dinañ ci ñëw après mais au-delà de la réduction des comptes ay mais Sénégal c'est inadmissible le sniper je sais pas mais c'est inadmissible c'est inadmissible man lu ma gën a naqari sama àdduna loolu la yow yow yow yow jibi hmm. alors qu'en réalité ñu ngi wax ne Sénégal ñaata nit ñoo ñàkk seen ba bakkan kenn xamuloon ci yenn condition la leen faate mënoo incriminer la police mënoo incriminer la gendarmerie mënoo incriminer kenn pourquoi parce qu'il n'y pas une enquête en tout cas sérieuse boo xam ne diligente diligente nañ ko dans ce sens là à partir du moment où le gars là est arrêté attendons-nous en tout cas à d'autres arrestations attendons-nous à d'autres révélations yoo xam ne mën na dem a dem a dem ba impliqué ki nga xam ne tey jii moom mooy l'ancien chef de l'État te bu ko impliqué impérativement xaw ma fu mënti nekk mais on peut lancer un mandat d'arrêt contre lui mu ñëw mu leeral par rapport à sa gestion moom mi nga xam ne moom moo nekkoon la clé de voûte des institutions amul lenn loo xam ne doon na am Sénégal parce que on dit que le président de la République c'est l'homme le plus renseigné c'est l'homme le plus informé donc bu boobaa moom en tant que ki nga xamante ne tey jii moo jiite woon Sénégal dina ñëw apporter des éclaircissements par rapport institutionnel yoo xamante ne tey jii nii kat da koy incriminer au premier chef. au premier chef ah jërëjëf Ndiasse eh, dugg nañ ci wàllu reddition des comptes bi kon déjà eh, am ñuy commencé woo eh, fi mu toll nii naka ngay jàngatee loolu les les les convocations là yi nekk jamono ji encore. waaw di ci euh, di ci kontaan rek ah parce que comme ni ma ko waxee saa su nekk. ñii dañ leen dañu am promesse boo xamante ne dañu ko defoon jaay ñu benn discours muy que ni bu ñëwee dinañu sàmm alalu askan wi fexe ba euh, delloo ko ci askan wi képp koo xamante ni tamit jël nga.